des comptes bi kon yow jàpp nga ne euh, euh, euh, affaire u 94 milliards yi nga xam ne ñeenañ nañ Ousmane Sonko peut-être nag jox na ko dëgg keneen ak keneen wax si da nga jàpp ni dañu war a approfondir approfondir cas yi fii cas war a approfondir moo bëri cas ñu war a approfondir moo bëri parce que qu'il s'est passé des choses tey dafa am ay procureur yoo xam ne dañu outrepassé seen prérogative parce que procureur conférence de presse boobu mu defoon noonu en son temps mais c'était pas une une une une une une conférence de presse de la magistrature c'était pas une conférence de presse de la justice c'était une conférence politique une conférence de presse politique pour charger un opposant moo tax fu fekkee Ousmane Sonko dafa taxaw ne si Adji Sarr si lii ak si lii dañ ma doon complot mais Ousmane Sonko ñii di ko félicité tey di jéem a jaay fair play bu doon kon seen sago waxuma la nekkul premier ministre tey mais kon rey nañ ko parce que c'était ça projet mais léegi ngeen bëgg ñu jël loolu rek kii nii nii man pour man pétition bi daw pour un mandat d'arrêt international contre Macky mais ñëpp ko war a signer Macky dafa war a dellu il doit rendre des comptes son fils doit rendre des comptes parce que affaire wu affaire wu kii yi nii nu mu tudd affaire wu nervi yi mhm. da see taq rip te li ma si xam bëri na Amadou Sall fait partie des gens qui recrutaient les nervis nervis yooyu ñaata nit lañu ñu rey ñu bàyyi noonu mu jàll ñaata nit ñoo dem prison pendant ñaata plus de 3000 personnes. donc chasse aux sorciers seen àdduna. chasse aux bi chasse aux bi ñuy wax kon c'est c'est une obligation. mais ni loolu du chasse loolu loolu de. bon ak kàddu yooyu ab du moom moo ko yëkkati les Amath Suzanne Camara génn nañ ko di ci wax. waaw non xam nga mooy mhm. mooy nga dem fekk benn waay def ko proie. lii du chasse lii reddition des comptes la. Mhm. des comptes mooy xam nga lan. Mhm. yaa fi defoon. mais kaay wax li nga defoon lan la. Ah. Mhm. mais da ngeen yaakaar ni les gouverneurs ak les préfets mais décision yi ñu doon jël yow nga yeewu suba teel un préfet de Dakar ou bien un gouverneur de Dakar jër plus de cent ou trois cent jeunes nga la leen tey doo leen liggéey parce que moto ngeen yor da nga foog loolu c'est-à-dire ça c'est des décisions à prendre foog te tegoo ko fenn yaa a eu aucun argument tey la bi bi bi nit ñi kaasee ba kaas. ay manifestation doo doon am te gën tere moto yi mhm. mais kon ça veut dire la xewoon fii covid 19 ba ñuy dóor nit ñi yow wuñ suba teel ñu ne il faut apprendre à vivre avec la maladie mhm. lan la ñu waxoon il faut rester chez vous di dóor nit ñi di tëj marché yi ñu toog ba si yàgg ñu évoluer te ba ñuy wax loolu am na fi ay sentinelles yu taxawoon ne leen bàyyi leen dóoraate yi on peut vivre avec la maladie ñu ne leen du dëgg mhm. ñu ne leen booy yi ngeen di xañ nii seen dawal moto du ñii ñooy taal réew mi parce que nag xam nga ñooy taal réew mi sax xale bu war a dem jafi cag-cag yaa ngi dégg mu nga ne ko tey doo dem liggéey mooy xanaa demal manifestation mais xale dina gaare cag-cagam di dem manifestation hmm? donc ñii ils ont fait un ay erreur mhm. de gestion deuxièmement des détournements de deniers publics troisièmement nag ils on trop abusé de leur autorité alors duñ si def reddition des comptes beneen bi exemple yi bëri na. léegi fu mu ne nii chaque jour nga dégg benn dénonciation. mais ci biir dénonciation yi mais demal ministère de l'environnement mais ministère de l'environnement carnage financier fa am. of nag ñu koy doog a bind mais gars yi bi ñu ko commencé wax yàgg na. Mhm. ils ont un directeur ah. des parcs nationaux qui s'appelle Bokar Thiam li may ñaan li may ñaan les nouvelles autorité mooy ñu dem audité la gestion de Bokar Thiam parce que Bokar Thiam d'abord bi ñu koy bi ñu koy nommé il était à huit mois de la retraite il est là depuis juin deux mille vingt kon ça veut dire que retraité na depuis trois ans kan moo ko fa téye. Mhm. et pourquoi ñu téye ko fa. et quelle est sa responsabilité sur le carnage financier wu quarante cinq milliards à gauche. Mhm. tant de milliards à droite. mais bu ñu demee xool dem ministère de l'environnement dem direction des parcs nationaux mais dinañ fa gis loo xam ne lu extraordinaire la nañ dem laaj gars yi kañ lañ gëj am tenue te chaque année ñu génnee xaalisu tenue kañ lañ gëj am li nga xam ni moom la ñuy dundee noonu lu mel ni ay petit pois ay leneen ak leneen nañ dem laaj leen. am na agent bu ma ci rapproché woon mais euh, wax na dafa déplorer exactement seen situation yi même hôpitaux yi nga xam ne day nekk ci biir parc yi ay militaire lañ ñoom dañuy dugal seen loxo bu baax a baax par rapport ak quartier bi mais toujours retour yi ñuy am ñoom dañu doon dem ba dañuy sonn seen day salaire yi day ni tey ainsi de suite donc. mais dama dama laajte scandalu armes yi fi amoon. arme yu bon yoo xam ne mu maanaam def ko def ko matt rek matt di ko taalee di ko jaaroo rek loolu rek lañ si gars yi deful arme yi munitions yi ñu jënd mhm. munitions yi du dugg ci arme yi mais scandale moo am foofu damay inviter les nouvelles autorités ñu dem xool Bocar caam li mu def foofu d'accord c'est extraordinaire. ñu leeral bokkul ak Moussa Bokar Thiam bu communication. waaw exactement. voilà donc tout à l'heure balaa ñuy tëj point bi parce que ci wàllu réduction des comptes bi dañu gis ne euh, dañu ko tàmbali rek euh, ku ci mel ni honorable député Abdou Mbow génn na ni état bi dañu war a dem liggéeyi xam nga te bàyyi coowal rapport yi parce que sénégalais ci loolu lañ leen di gën a xaar yow loolu euh, noo ko gisee. ah dafa bëgg lu yomb rek. ah. lu yomb rek. parce que liggéey bi ak liggéey bee du benn la ministère des affaires étrangères di def est-ce que ay audit mun na ko tardel non le ministère de l'agriculture di def est-ce que audit mun na ko tardel le ministère des sports war a def est audit mun na ko tardel waaye nag ministère de la justice ak yeneen corps yi dañu war a fexe ba li fi am xam nga ñoom ñoom xam nga lu leen ñoom ñoom ñoom ñoom bi ñu jël décision. Mm. ne reddition des comptes ba ñuy doog a ñëw baaxoon na te sénégalais yi d' accord nañ si. ñoom waa pouvoir bi. waaw waaw mooy ñoom ab Abdou Mbow yi jóge fi. ñu ñu d' nañ si de. Mm-hmm. c' que dañoo toog ba si yàgg ci vingt cinq personne ñu ciblé si benn nit muy Karim Wade. jóge fa nax saayal ko ba mu neex leen. ñu ab Abdoulaye Balde ñaari yoon lañ ko woo woowutuñ ko pare dugal ko seen gouvernement. Mhm. ñëpp jàpp ni te ñu gën a bëri si vingt cinq yooyu est-ce que desoon na ñett wala ñeent yoo xam ne léegi transhumé wuñ vingt cinq personnes ya demal xool demal xool Umar Sarr. Mhm. demal xool Pape Diop demal xool keneen ak keneen ña ñañ ci boole woon tey bu desee ñett sa la yem ñeneen ñu si des ñëpp à un moment donné ils ont rejoint le camp de Macky kon ça veut dire que audit yooyu dañ koo génne woon noonu rek pour tiital leen ne leen ñëw leen mais kenn waxul loolu dañu ne bu ñu ko def affaire politique ña war a daanu nañ daanu te nañu war a ñañu xam nga audit yi lan moo tax mu am solo reddition des comptes nit ñi dañ yaakaar ne reddition reddition des comptes pour dóor nit rek la non wala règlement de compte non non déedéet xam nga lu tax mhm. te imaginal benn directeur bu benn société nationale def liggéey bu mucc ayib jël alal bi waxuma la mu sàmm ko de mais mu fructifier ko. Mhm. mais kooku am na sañ-sañu taxaw ne um, euh, Bassirou fay Faye delloowaat leen ma sama post mhm. parce que man je suis un effectivement parce que appel d'offre yi léegi mu commencé exactement. Mhm. loolu la kon redis kon reddition des comptes bi nekkul pour dóor ay yat rek mais mun na tax ñu gis des sénégalais extrêmement compétents. très très très honnêtes yoo xam ne jox nañ leen post mais ñu def ko liggéey bu mucc ay mm-hmm. mais kon Abdou Mbow moom bu fekkee ni dafa ragal audit ak reddition des comptes moo xam lu tax mu ragal ko ndax moom ak xaritam yi def nañ fi loo xam def nañ fi loo xam ne bés bu Sénégalais yi tegee seen bët ñaata ñaata fii rek en quelque un mois wala même pas quinze jours wala ñaata scandale moo fi génn. bari na ñaata milliards la gars yi de la de la. 94 29 moo tax yow boo gisee yenn kër yi. Mhm. ak yenn train de vie yi mais yow yow tu te disais parce que sama benn waay dafa ma ne xam nga lan mooy milliard un mooy da ngay liggéey 16 ans di fayeeku 5 millions de francs chaque mois. te doo si dépenser dara. mooy mooy tax nga am un milliard. ban fonctionnaire moo fi fayeeku quinze millions nga xam ni war naa toog pandant seize ans du si lekk dërëm pour am un milliard te fii de simple fonctionnaire ay xale yoo xam ne defuñu ñetti at ci ci gouvernement mais ay milliardaire lañ mhm. kon ñooñu fan lañ ko jëlee des fonctionnaires multimillionnaires mhm. des sous-officiers xam nga dama lay wax rek ay ministère de l'environnement yi lañ gis rek de parce que foofu dafa am ay civil ci biir ak yooyu sax muy feeñ mais dama ne même tey jii armée bi ñu am ñoo taxaw fii naan ay woy nañ jox réew mi armée bi bés bu ñu defoon audit ci armée bi nga gis loo most a gis lii maa la ko wax ce ne sont pas les gens les plus honnêtes. Ah non loin de mais pourquoi nga wax loolu doyen. ma ne déggoo lu ma la wax xam nga ñoom ñooy la grande miette. kenn du wax kenn du kii mais bu ñu yóbbu woon ay corps de contrôle ci armée nga gar sa gémmiñ il sont pas les les gens les plus honnêtes. et pourtant ñuy wax ne Moussa Fall euh, def na fi liggéey. waaye déggoo lu ma la man je ne personnalise pas dama ne. maanaam ñoom ñëpp de façon. ma ne dama ne boo duggoon tey jii si armée bi xam nga armée lu tax doo leen gis ak doo leen kii dañuy dañuy enveloppé seen lu bëri si secret défense. mais dama ne bu ñu defoon de manière transparente dem seeti xaalisu réew mi ñuy dugal ci biir armée bi est-ce que mu ngi yegg fu mu waroon yegg dëgg-dëgg nga xam ni yaa beaucoup de de de de de kii supérieur mhm. d'officier supérieur ah yoo xam ni ils sont pas meilleurs que les en termes de transparence